donc tay dañu dajé fi donc pour fonder syndicat bi euh bo xamné ay katou école privée ñoo ci nek liko dalé maternelle ba université jaar ci moyen secondaire bi ak élémentaire bi donc euh, parce que dañu gis tout simplement que ñun dañu nek ay liggéeykat kat yo ni suñuy ak ak suñuy yelef euh suñuy patron respecté wuñu ko tay képp kuy liggéey bo défé si école 3 mois lu mu bon bon war nga mëna am contrat Bofa fa defee benn période bi war nga mëna am contrat à durée indéterminée ñu lay fay 12 mois sur 12 di la ubbil IPRES di la ubbil caisse de sécurité sociale jigen ñi nga xamni ñi ngi ci biir jàngal njàngale mi ñu respecter seeni droits képp koo xam ngi ci en état de grossesse vraiment bo waré jël congé de maternité nga wa jël ko ñu continuer di la fay say salaire ak say droit mais lolu yépp tay ji amuñu ko ñun dañu nekk ci école yi ñuy exploiter duñu tek lo xamni sax kenn waru ko tek nit

que ñu respecté suñuy àq ak suñuy yelleef ñu ciy interpellé nag gouvernement du Sénégal ak le président de la République mu xam ne moo ñu bokk njaboote ñun ñëpp mu woote vraiment ben ndaje bo xam dinañu fexe ba problème yi nekk ci jangal ci ci enseignement privé bi euh deñ waaw ñuy wax aussi également parents d'élèves yi que depuis un an 2 ans ñi ngi yuxu ci médias ak yoy pour xamal nit ñi conditions de vie yi nga xam ci lañu ñu nekk bu école tidjé nak parce que école mi ngi waaj a école tidjé dinañ dérouler suñu plan d'action on peut aller jusqu'à la grève duñu reculer devant quoi que ce soit parce que nak Sénégal fi dafa melni dal boy booy laaj droit kenn dula xol il faut nga def ben action bo xamni du neex kenn ñu dog la xol lool nak daf fi wara deñ ñun en tout cas sonu nañu seuss nañu mënatuñu supporter conditions yi dund ni donc suñu patron nañ ko xam euh, parents d'élèves nañ ko xam état Sénégal aussi nañ ko xam def tey assemblée générale bu ñu ci jógee dinañ gëna organiser wu bu ko défé dinañ def ay sitting def ay manifestation ci mbedd bi ba paré nak doog dem grève ñi ngi yëgal autorité yépp nak que vraiment on est là talal leen suñu loxo paré nañ pour toog ak ñëpp pour waxtaan ak ñëpp pour trouver ay solution ci ci enseignement privé